sant jumaa ji mi ngi def mi ngi def mi ngi def waaye ay turandoom lay njëkk a oo ñooy njëkk liggéey ci jumaa ji keroog mu ngi toog ci timit mu ngi toog di tàkkusaan bu julli timis muy continuer di waxtaan ci jumaa ji ak turandoom yi mu woo ne ñañ ñëw mook ñoom ñooy ànd tabax jumaa ji keroog wasifa jiwul bi bi ñu bi ñu waxtaanee ko waxtaanee ko su bàyyi gàddul naa leen seen wasifa yéen ñi yéen ñi fekkee loolu ci barke baram yi ci la na amee bés boo xam ne bàyyi nee na gàddul naa leen seen bés karanga bés tey ko defal nee du man ndax ba mu leen wooyee jumaa ji rek karanga boobu taxaw la yëkkati boobu taxaw ka doole boobu taxaw bon tey ñun ñëpp karanga bàyyi tey ngir kontaanee xale yooyu xam ne ba bàyyi wootee ni ñëw dañuy tabax bu baax ñoom ñëpp ñëw am na ñoo xam ne bi ñëw ñu ndaw lañ am ñoo xam ne ay xale góor lañ am ñoo xam ne ñoo ànd ak ñoom ñëpp ñu ci dëkk bi boo ak maçon yi ñoo daan ànd ak maçon yi di leen dootee mool yi ñoo daan di suuf lépp loo xam ne rek ñu ngi jële ci jumaa ji yombalaayu yu ñu xawee dafa yokk taxawaay boo xam ne bàyyi kontaan na ci ñoom kontaante boo xam ne amul àpp ah euh, ñu nekk euh, ay xale yoo xam ne ñoom itamit sawar na ñu leen wooye di ko def ak seen xol di ko def ak seen yéene di ko def ak seen bëgg-bëgg di ko def itam ngir fii ci liggéey boobu mooy seen turandoo mooy Cheikh Ibrahima ñoom ñëpp ñu ànd ko tabaxal ba taxawal nañ ko jubee jii jumaa ji sotti am na ci ñoom ñu fekkee am na ci ñoom seen doom fekkee nañ waaye teraanga bi mën naa leen ko defal waaye waaye mën na defal ba ngeen boole ko jumaa bi rek te fu jumaa yi àgg ci yëkkatiku incha allah yéen ñëpp ngeen fa àgg ci yëkkatiku yéen ak seen njaboot ba fa àddina incha allah ndax loolu jumaa ji yëkkati jumaa ji yëkkatiku nañ yéen tamit di ngeen yëkkatiku ànd ak jumaa ji euh, maa ngi fàttaliku tay yi nekkee am na si ñaari baraan ba ñett ñoo xam ne dañoo nekkoon sama xarit kenn ki ko wax baraan dégloo dégloo lan solo waaye boo leen gisee bu ñuy somm liggéey di somm liggéey ñoom ñëpp kenn du loolu la da ngay ci liggéey bi di ñu naan day xaj ñu nekk di móol di móol a wàcc kenn fayu leen bàyyi ñu na jumaa ji pare na bàyyi leen bu jumaa ji pare yéen jumaa ji pare yéen seen seen ko ndax àgg nañ ci ñu bëggoon parce que li ñu bëggoon mu ne waaye bare ma ci bare na kon ñun ñëpp suñu soxla faju na incha allah dañ leen doon fi ne faj bis ci tey nii dañ koy def fàttaliku xale yooyu xale yooyu fi nekkoon jëm nga xam ne yooyu jumaa ji kenn mënu leen a tàggale ak jumaa ji kenn mënu leen tàggale bon nag seen tasaaroo ñi ñibbi seen baraam yi ak jumaa yi seen tur du du du tàggoo moo tax benn bi jaar si musulman yi damaa ñaan ñu leen kawal dama ñu ko mën a tuddee ko balaa ndax ñu xam ne fii la ñu ñu xam ne jëm ba nga ne liggéeyu góor taxaw na dañoo taxaw liggéeyu liggéeyu góor boo xam ne def nañ ci seen boole kattan ak seen boole ni jom ak seen boole ni euh, xol pour liggéey bi liggéey bi àgg rafet rafetaay boo xam ne dëgg-dëgg kenn mënu leen a fàtte ci mbir yi kenn mënu leen a fàtte ci mbir yi kenn mënu leen a dagg ci taarixu ñoom it kenn mënu leen a tàgg tàggale ak bàyyi ndax daf suma turandoo yi donc moom ak ay turandoo incha allah ca àjjana bi na kawe ñu def incha allah ñuy joxante bi te ñun ñëpp ñu ngi seen xol seen na ñu ngi seen xol kontaan na ndax lan oote boo xam ne dafa jógee ci Cheikh Ibrahima delluwaat ci Cheikh Ibrahima ci ay taalibe léegi dana gën a woote gën kon nag yéen uy si yëpp da ngeen xam ne ñun ak yéen duñ tàggoo ba idaa yawmi diini duñ tàggoo ba ñu tasee dana ñu insha Allah tabaraka wa taala ndax kalaal boobu lañ séq ñun ñëpp kalaal boobu lañ séq Cheikh Baye Mara woon nañu oote la ci yàlla ñu ne ko jaayante la ñu ñëw ci yàlla loo ñu rek ñu def ko ñu santaane ñu ko liggéeyal ci tool ñu ko liggéeyal fu liggéeyukaay nekk rek wala Cheikh Baye Mara ay sa ci jumaa ji moo ko jëmmal jëmmal tabax bu rëy bii di wone fi di ci Cheikh ci nguuraam ci fexe na ba am bépp création boo xam ne autorité yi ñu ko joxee pour jumaa ji taxaw yépp am na ko ba nga ne kenn du ko gêné ci dara du ko tabax jumaa am ay turandoo ay turandoo nañ ñëw ko ñoom ñooy bokk tabax jumaa ji ñoo ko tabax boo jumaa ji taxaw ñii sët jumaa ji teew su ma xel dafa doon daj mais boobu te ñoo seen seen jumaa la seen xet ñu ngi ci jumaa ji seen ñaq ñu ci jumaa ji seen doole ñu ngi ci jumaa ji seen xel ba léegi itam ñu ci jumaa ji te jumaa ji boo ñëwee moo tax bés bu bés bu gën a kawe ci bési beneen bi bésu tey lii ci la ndax keroog boo bàyyi toogee ci pilaam diggante takkusaan ak timis ak ba ci geer di leen woo na ñëw ci jumaa yi keroog dëgg-dëgg keroog la leen def ay buur keroog la leen teraanga teraanga boo xam ne bu dakk ba ilaa yow yi su fekkee kii jëmmal dara dañ koy jëmmal rek ne ñun tamit ñuy dund ak yéen fàttewuñ loolu te duñ ko fàtte ñii ko benn dëkk ndax jumaa euh, signe civilisation boo demee réew mi nga gën a développé yépp boo demee ñi ngay fonk seen église ñi ngay fonk seen sina synagogue ñi ngay fonk seen mbooleem jaamukaay yàlla yi ndax loolu yëpp dafa ànd ak civilisation doomu adama dafa ànd ak développement doomu adama donc wan ñuy tabax jumaa ñu xelal seen xel tabax loo xam ne bokk na ci àddina bi jaamukaayu yàlla bokk na ci àddina bi kenn mënu ko dindi ndax yàlla ko santaane tamit ñi ngi gëmee ñi gëmee nii ñi gëmee nii ñi gëmee nii waaye ñun ñëpp wala ñu ngi sanako ñu ngi sanako ay temple ñu ngi sanako ay eh, ay ay synagogue ñu ngi tab sanako ay église ñu ngi sanako ay juma te ñu ñëpp yàlla wax na ay néegam la ah, la ay néegam la wala wala difaarullahi nasa baadahum bi baadin la huddimat sawaami'u wa biyaa'un wa salawaatun wa masaajid donc yéen néeg yooyu yëpp boole na néegam la

nit ñu am dogu jaar nañ fi parce que seen dogu moo taxaw nii seen dogu moo nekk nii seen dogu mooy wax julli su waxtu julli yëpp ñu ko fay julli di fa sikkar di fa jàngal alquran seen dogu la ñoom moo tax ñu taxawee nii kon nag ba leen bàyyi taana keroog la ko jox teranga xam ne amul benn rakk bu ñuy julli ci jumaa ji wala benn ñaan bu ñuy ñaan ci jumaa ji lu dul seen wàll dañ ko am loolu jox ñaan seen wàllu jiw ku jàngal alxuraan seen ndax ñoo ko moom ñoo ko tabax seen deret la seen seen yëpp la te ki leen ko sant def leen koo yéene ne leen samay turandoo laa bëgg ñu ñëw ñu tabax jumaa ji ah yéene boobu kenn du xam fu mu yem ak ñoom mën na leen yóbbu fu nekk ci àddina bi te ñu ngi yaakaar ne itam ñu yóbbu fu nekk si àddina bi moo tax jotaay bi dañ ko wootee pour ñu fàttaliku si bopp ak luy mën suñuy bàyyi duñ mën ak ñu def ci daara ndax ñun mën nañ koo lëjee ndax mën nañoo bokk ndax mën nañoo yokk ndax mën nañoo dimbale nit ñi ndax mën nañoo def loo xam ne lu tekki la pour l'humanité lu tekki la pour Sénégal lu tekki la pour addina bi yëpp jumaa yi tekki na pour addina bi yëpp ndax keroog ñu koy sañ ci addina bi yëpp fi daje ah te loolu ay baraan yoo xam ne dañ koy liggéey ay xale lañ ay xale yoo xam ne xale yu sawar lañ woon maa ngi fàttaliku ci xale yu sawar yooyu Baye Fall boobu Cheikh Ibrahima Fall boobu nekk rootee ndox mi ci biir heure la kenn xamul yooyu yëpp ñu def ko ak ak ak baraam ak baraam sadasi sa sa sa sadasi defe naa am yooyu yëpp ay xale yoo xam ne boo leen gisee dañ leen di yaa ngi leen di fàttaliku ni ñu daan sawaree ni ñu daan liggéeyee ni daan defee donc bon bu ñu amee bés boo xam ne dañuy tasee ñoom ak seen i doom dëgg-dëgg loolu taarix la boo xam ne yàlla moo leen ko bindee ci laa ñu bàyyi ndax moo leen wax ne samay turandoo laa bëgg ñu ñoo ko defal naaj ah kon nag tey ñëwee ne dina fàttaliku doom yooyu jumaa ji fàttaliku soldaar yooyu euh, mottali ko rek la ak wone ne dara dabbut nañ ànde woon dem noonu lañ ànde tey niñ bëgg a yee ni defaree nii noonu lañ bëgg a yokkee ëllëg itam bëgg nañoo yokkee ci côté bu nekk bëgg nañoo yokk ci mbay agriculture bëgg nañ cee feeñal suñ njàmbaar ne mën nañoo bay ci suñ suuf si loo xam ne dina mën a teye Sénégal ci dund te mën naa am doom yii taxawal jumaa yi mën naa def lu nekk ba ñu ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci turu Cheikh Ibrahim su fekkee yéen naa ko maa ngi di gërëm ci turu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu di leen ñaanal ci la mel ni Cheikh Ibrahim su fekkee yéen naa ko yépp maa ngi leen koy defal di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yokk leen yal yàlla yokk seen doom yàlla teraangaa yàlla àggal leen foo xam ne góoram fa bëgg a ci àddinaam ci yiw ak mbaax ak kawe ak am-am yépp ñu yaakaar ni yàlla dina ko sotti ci yéen te daf koy sotti ci yéen sax mu benn sëkk yaakamteeg ñàkk yaakamti ak doxalin rek moo fi nekk suñu xamee ni ñuy doxalee suñu xamee lu ñu mën suñu xamee suñu kàttan ñu sant jumaa ji seet lu luy bëgg rek ñu ko wax bu ñu ñu yeneen doxalin yoo xam ne doxalin yuy dellu ci jullit ñi ci ngëneel fii ci àddina ak ëllëg doxal doxal doxal te Cheikh Laay ñi woon leen ne samay turandoo na ñëw ci jumaa ji ñoom yëpp ñu ñëw ñu tabax jumaa ji ñu sotti ñoom moom moom ak ñu bëri ci ñoom fekkewuñu ko waaye terewul yéene bañ ko doon liggéeyee loolu sa àggale na jumaa ji ak yeneen yitte yoo xam ne nit ñi def nañ ko pour jumaa ji ak bis yi ba léegi ñu ngi géntaat pour incha allah yokkaat ko ba mu gën a ba mu gën a mag ba mu gën a ci lañ jóge liggéey kon nag jumaa amul yemuwaay am na tàmbali waaye waaye amul ci yemuwaay dañuy waxtu nekk rek ñuy tabax di yokku waxtu nekk rek tabax di yokku dañuy yàlla dimbale ñu sonal sonal ne incha waaye di am ngërmande xam ne ñooñu jox ji comme misaal ne mooy seen misaalu àddina parce que àddina yëpp suñu maam nekkee modèle ci seen jamono ci àddina bi yëpp àddina bi yëpp di leen roy ah ngi ñaan yaakaar kale ñun tamit dinañ war a beneen modèle boo xam ne àddina bi dina xam ne ñii nelawuñ bàyyiwuñ dañoo àddina bi loo loolu lañ loolu bëgg loolu lañ bëgg a ci suñu songaat bii di ñëw boobu xam ne ay nit yu fi nekk lañ te nit yu mën a bokk lañu ndax am nañ luñ bokkee am nañ mbooloo mbooloo lañ am nañ xam-xam am nañ ay jeunes ay ay jeunes yu bare bari ah, te loolu mooy li nga xam ne rasumaat bi nga xam ne yàlla teg na ko ci loxo nit te am nañ ci luñ bokkee ci àddina bi luñ tabaxee ci àddina bi luy yokkee addina bi loolu yëpp mi ngi fi yal nañu yàlla dimbale ñu xam ni ñu koy yëng ñu xam ni ñu koy defee ak ñu koy doole yal yàlla fay ci seen jotaay bu tedd bii bu kawe bii jotaay bu ñu sax ci euh, ba ñu ko seeg nga xam ne ñoo xàllal loolu ñuy jaar yal yàlla fay leen def nañ lii tay commencement rek la waye bëgg nañ ci bu gën a mu gën a yaatu a la parce que param ni param yi war nañoo am seen bési bop ci ak mi ah war nañoo am seen bési bop ci ak mi bu ko defee ñu bu seen bés bi ñu defee ko ci ñu defee ko Taïba ñu defee ko euh, ci seen dëkk ben ci seen dëkk yi yoy yépp pour jokkalante nit ki jokkalante yi gëna a dëgër dimbalante bi gën a dëgër ndax ñu mën a yal na yàlla fay leen yàlla gërëm seen taxawaay yal yàlla sant leen gërëm imaam ak Mahdi Mahdi man wax bi dama ko wax rek waaye yëpp moo ko liggéey yëpp moo ko liggéey mook ba mook euh, Baye Fall ak Ibrahima Ndiaye ak Baye Kodd guddeeg bëccëg ah bi tey ñu ngay liggéey guddeeg bëccëg bu ñu demee ba guddi ñu ñëw indil ma yi lañ def yi lañ def yi lañ def yi lañ def ndax lii ndax lii ndax lii bon da def leen dindi leen bii def leen bii dindi def leen bii ñëpp ñu ànd ñu ñëpp di ànd di liggéey ba alhamdulilah yàlla àggali guddi gi ci ni mu ko aggalee àggali bés bi ci nii mu ko àggalee bési ajjuma ziyaare yëpp tase te yëpp ay ngëneel la <coughs> ay escalier yoo xam ne escalier yeeg escalier jëm ci teranga rek la na ko yàlla dëgëral ko saxal ñaanal ñëpp gërëm ñëpp salaamaaleykum